ak noo leen neexee nag waaw <laughs> yeneen bi noonu na na nga ñàkk sa làmmiñ nag waaw moo tax képp ku ko tuddal nit jàppal ne yow sa àdduna sa alaaxira saye ndax yàq nga dund nit waaye oustaz képp ku ñu ko waxal am nga chance laaj ma lu tax quartier ba nga ni luñ julli yaa ko moom luñ woor yaa moom luñ saraxe yaa ko moom luñ aj màkk yaa ko moom lu fa doom defal wuy juróom yaa moom lu fa jabar defal jëkkëram yaa moom ndax yu ñaaw yañ lay waxal di lu ñu julli yàlla def ko sa compte Dalifort Iran dëmm la jàmm gën Iran dëmm la kaari Iran dëmm la fépp fu ñu koy wax te ñépp a ngi julli di woor ñu koy def sama compte moo tax kuñ koo waxal am nga chance tuuma tuuma ndimbal la ndax ñale la koy wax ñëpp luñ jaamu yaa ko moom xanaa xamoon ne nit a ngi jaamu ci jaamulul boppam jaamulul boromam moromam lay jaamul dama ne nit ngi jaamu yàlla te jaamulul boromam jaamulu ko boppam moromam lay jaamul ndax lu mu def ko ci compte morom ndax wax rek moo tax Ibrahim ibnu Adham ak riyaaxin daan nañ wax ne man de su ma demee bay jëw ak asanul basri su ma demee bay jëw ma jëw sama papa jëw sama yaay gannaaw koo jëw ñu jël saw jox ko ma jëw papa yaay ñu jox ko sama yiw mu delloo ma ko dafa nga ne ndóoy mais bu ma ko jëwee ñu jël jël sama yiw jox ko dana ma ko joxaat joxaat kon képp koo xam ne ñu ngi lay waxal lu bon di la waxal lu ñaaw santal yàlla ñaanal wax ja gën a yaatu ndax sa yiw gën a bari c'est très important sénégalais na aka ragal sénégalais buñ ko bindee ci journée yi mu dof waaw ndooy dégg nga liñ may waxal nangam nangam usaalin bay defal leen ma faatiya ah, ñu may xeer di ma mbamb nangam nangam subhanallah Serigne Cheikh nee na maa ko déglu ci rajo Tiwaawoon Al Bayaan ñu teg kasetu Serigne Cheikh mu ne Sidi Hadji dañoo ñëw ni ko ah si dégg liñ wax mu ne lu mel nan ñu wax wax ba yeggal mu ne ah aayul dañ may yokkal sama yiw rek ndax wax joo xam ne kale koy wax lu mu jaamu yaay boroom boo sañoon mu gën a bëri c'est tellement mag ñi seen dimension Aline Mbaye moom day dof Sud FM dañ may xeer Baye Omar Gueye ah, dama koo xëy nuyu fayu ma Iran defal ma kaamil wax Abdou Sall ñu defal ma kaamil Baye Omar laa nuyu rek mu du mooyu ma féel sama loxo man baatu daf maa bëgg a dàq boo ma dàq xam nga damay torox seetal loolu du noonu soo defulee bul tiit soo defee bul tiit jéggulul sa borom gàtt na yaa def baalul defoo problème amu ci moo tax lu bon baax na xoolal tey Mouhamed Lay ma def ko ci ma dem ca net ba bind fa ne Mouhamed Lay njaalukat la njaalo na parce que biiral na taalibeem nga commentaire ci yow Aline Mbaye Assane Diop commentaire Ndoy commentaire Aline commentaire Makhtar commentaire keneen commentaire commentaire yépp ñaaw ñun ñëpp suñu jaamu yàlla nga ca compte Mouhamed Lay kon muhammad ubbil xool ne yal na yok da ngay bind suuf da yow yow lañ wax de bind suuf ne waa muhammad li mi nim def lu ngeen ci xam gaa yi ñu dolli commentaire yi képp ku ca wax safaan yow lay jaamul yàlla nit bu xamul lool moytu atusbihu kulla yawmin manihan li xayrika xuyóorika xuyóorika ku ko wax Maodo nee na ndax bëgg nga yow Alioune mbay waxtu woo xëyee ci sibaar tàkkusaan timis gée suba julli yëpp nga def ko askar yi nga def nga xëy a rek may ko ndooy bëgg nga ko nga ne ko Maodo loolu duma ko def mu ne ci ngeen dëkk nga ne ko duma ci dëkkee mu ne taxaw ci sa buntu jumaa rek julli ba sëlma rek Assane Diop romb la nga ne ak ah, kii ak noppam yi ak a garaaw ñu jël ci sibaar yi démb tàkkusaan timis gée ak subaytee ji leem def ci compte Assane Diop asan kon bëggoo li bëri aka garaaw rek trian la sa julli yépp jox nañ ko asan Diop moo tax Maodo daan wax ne yàlla yokk ndax bu wàññi ko sama bénéfice dem mag ñi ñooy ngand ñun ay buqal lanu ndooye ngi nii tey buñ ko bindoon ci journal turbine léegi bu dof day démissionné Ahmed Aïdara kuy revue de presse rek wala ndaw soo nu mu tudd maanatulaay maanatulaay revue de presse ko rek mu gàddaay day démissionné ci euh, seen TV daal di dem fële ci yeneen télé yi ba pare nag buñ ko laajee mu ne fee ay ne nangam nangam dekkoon fekk loolu baax na buñ ko revue de presse ku ne dégg ci xas la ca wax la ci lu ñaaw ñoo ñëpp seeni julli ñu boole ko defal la sa compte baaxul nel dollil dollil moo tax tuuma baax na su tuuma jibee rek sew yu commencé yokk ndax ku ca wax ku ne la mu ca wax ñu jëli wam jox moo tax olof ne tee ngaa moytu daqaar doom ku ko maccul kat yow maccoo maccaanoo luñ ci jëlee sew yiw te soo moytu daqaar ji um la te maccoo ci waaw daqaar nag warta um ku ko macc maanaam warta rocc làmmeñu ku ko maccul mooy um xam nga daqaar boo koy macc saw làmmiñ de rocceeku ñu ne nag ki maccul lu ci làmmiñam rocce ko moytul far yow maccoo saw làmmiñ rocceeku ci mooy wax nit dara ñu jël sa jëf jox kon maccoo daxaar sa na ca wax ju sa yoon nekkul doo ca maanu xoolal ki bind ci journal lu ko leerul fekkeewul gisul ka ko wax fekkeewul gisul xaalis la bëgg pour jaay journalam ci deru gor mu bind ci lu ñaaw ñépp liir ko ña sox revue de presse ko moo nag anaa xamoo ne kii liir journal bi am na yu am solo yu ca ci tudd ko maa la ko wax am na am solo yu ne ci journal bi yoo xam ne jàkk juñ ubbi wala jumaa juñ tabax wala kaso bu luñ fa liggéey wala kuñ dimbali ku néew doole am na luñ bind ci journal bi yooyu waroon na koo yëkkati dégg naa Macky wax ko daf ne biñ ko laajee ci benn mbir daf ne moo ne dégracier nañ fi lu mat quatre cent personnes te dégguma ngeen wax ko lu tax waxu leen ko c'est ça lu tax waxu leen ko nga yëg ni nit ñi li ñu sawar a wax mooy lu ñaaw mais sawaruñoo wax lu rafet te man je me nit bu tiimee dara la ca rafet nga dem ko war a leeral nit ñi sawar ci def lu rafet mais dem nañ ba bind lu ñaaw tey man bu ma defoon délit dem naa benn bërëb benn bërëb maag Assane Diop ñee fa ànd ruq ba ñu toog kenn gisuma maxtaar mëli ak Aline ak chauffeur bi dem jëndi ak Abdou Aziz dem jëndi reer ñun ñu ne ci ruq ba fu lëndëm fa la ñu jullee géey ñun ñaar ñu ne ci ruq si mais bañ fay jógee def nañ ko ci internet doo xam ñi ay jinni lañ wala ay lu nu doon man avant may génn dakaar def nañ ko ci net bi benn nit woo ma wax ma xoola ruq sama toog ñi mu lëndëmee kalaasu càndum ngay def lool ca dafa garaaw ñooy def yu mel noonu xoola ki ni ci ruqam nga fexe ba avant muy ñibbi Tiwaawan nit woo ma ne ma waaw yow ñu ngi la gis ci net bi ak diw waaw bu fekkoon jigéen laa tiim nag ah baa ñu fekk ma ci jigéen kon duñ ko yóbbu ci netti netetet lañ ko yóbbu netetet mooy maam njëdi mais seetal ñun génn gunu maa ngi moom mi ñoo bokkoon fa ñu toog mais du lu aay nag du lu aay ne wuñ fu bonde lu du fu bon mais ruq sa ñu toog julli fa ba pare toog fa man fa laa dogee sama koor naan kafe xale yi ñëw jënd seen reer reer ñu doog a dugg fi ñu jëm ba leen ca bañ avant ñuy jógee foofa def nañ ko ci net nga xam ni kii moom mi kii kii ba kii bar na kii bar na trop bu doon lu bon tey fu ñu jëm bu doon la bon doo xam foo koy waxee moo tax gis nga lu mat di bàyyi xel la bañ di bind ci àqu nit même bu la wuuree ci soo ko bindee mu yàq addunaam bul bind gis nga ku yàq dundu jàmbala ngaa dee sa bos yàqu seet leen damay dama leen di sànni nag wax bi ku koy gis sa bopp rek jëlal seet leen ñi ngeen xam ñu nekk ci ay rajo ci ay rajo wala ñu nekk ci ci ci ci ci ci journaux wala ñu ne ci tele yi seen leen ku ngeen mas a xam ci wax ju ñaaw ju muy def ci nit ñi di feeñal ñaaw ñaaw nit ñi fu ñu mujj seet leen li ma wax rek seet leen journaliste yu ngeen mas a xam ci yu njëkk ña ak ba ci ñu mujj ñi ku ngeen ci xamoon ci bindam lu soxor fu mujj tey bàyyi leen xel ni jaami yàlla yi jógewuñ ci golo yi jógewuñ ci mbaam yi yàllaa leen bind sëpp leen ti ko leen laal laal nga ko yàlla ku laal jaamam laal nga ko Alioune Mbaye ku laal sa doom laal la defe nga ne Mouhamed mi mu ñëwoon mbécc sa doom tay loo tële tële xeex ak moom suyee boobu la ba la mais da xeex waaye yàlla sëpp jaamam bind ci àqam ñu di ko ŋawti ŋawtee fone papis daa def lii papis a def lee papis nangam papis nangam ci journaux yëpp fu mu aw ñu ne ko waaw sa booy booy yow li nga def noo ko mën a defee nekke dara amu ca ba a jaay journal rek te kat Aline Mbaye ngi wax suuf ne loo xam ci papis nag yàlla xam na ci lu ko ëpp suturaal na ko yow loo ko xaawee loo ko xaawee dafa xew nag aka bon aka bon yéen bi nee na ku suturaal sa mbokk jullit ndóoy ci àdduna bii àllaaxira loo bon bon loo ñaaw ñaawi jëf yàlla suturaal xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne danañ leen joxoñ waaye baaraam du leen laal ba ba ñuy dee man nga leen joxoñ rek ci tuuma waaye maa fekk muy def nangam wala maa ko gis mukk maa ko dégg rek maa ko dégg rek boobu la yonent yi yor am na ñoo xam ne ku tiim seen jëf juboon bon faatu baa ñoom ñu faatu dama ne am na ñoo xam ni ku tiim seen jëf ju bon faatu baa ñoom ñu faatu yàlla dina leen suturaal joxoñ bi nag ku yàlla bind ci nga bëgg lu baax dana la topp Aline Mbaye boo boo boo dee boo dee missionnaire mënoo fexe ba duñ la joxoñ Assane Diop mënoo ci dara xoolal léeg-léeg ñu euh, patron de presse yi léegi léeg ñu bind ci ñoom musiba te defuñu dara iñaan rek bëgg leen a yàqal rek bëgg leen a yàq rek iñaan rek mais ku def njàmbaar gu toll nii liggéey lijjanti télé doorub rajo indi journal indi d'accord indi la jooni jooni di ndaw di xale def lu mel nii da ko waroon a ñaanal encouragé ko seet noo ko yokkee boo amee loo ko yokkal waaye naa seet nu ma ko yàqalee mooy sunu feebar jël deru bugaan rek bind ci journée yi baa nga def ko ci euh, internet bi pour mooy waa léegi bugaan ñi mu jël fii ñëpp di leen fay ci wërsëgam ñu ci yor jabar yor ci doom yor seeni yaay yor seeni frère yor seeni sœur loolu lépp doo ko xool yiw wii yàlla teg ci bëtam yow nga bu ne naa di bind ci net bi rek pour yàq addunaam su addunaam yàqoo lii lépp yàqu nag léegi kon ñam doon dundal yàquwaale dafa dañoo bon nga naan soxor la rek léeg baaxul wax ju bon baaxul diw dëmm la kenn du ko wax nit jabari jàmbur nga naan day njaalo lu ci sa yoon jëkkëri jàmbur nga naan day njaalo sa yoon doomu jàmbur nga ne day njaalo lu sa yoon dalaa wóor Oustaz Alioune sax su amee xale buy jàng ci moom ñu tuumaal ko ci professeur bi ki muy jox cours di ko préparer examen su amul chance ñu tuumaal ko ci moom yow heure bi ngay jàng guddi na de ah <laughs> baa yow ci njàng rek nga yem yàlla wuur na ko ne ci njàngaleem professeur baa ngi bëgg a dee di joxe cours te te jox ko dërëm waxuma laak di mooy ak moom nañ moytu loolu yàq baaxul dëmm nga kenn du ko wax nit Aïcha li ñu amoon ci waxtu bi jeex na ki doon def waxtaan mooy si tontu SMS mooy seen mbokk Iran Ndaw lépp lu ma ci juum yàlla ma ko yàlla jéggal lu ci juum yàlla na ko yàlla def yow sotti ko ci àdduna bi yépp ñu bokk ko jëriñoo kon ba suba ci waxtu wi incha allah غريب هل سقامي تسمع يقاتل